merci beaucoup bismillahi rahmaani rahim maa ngi yëngi kaddu fii si Yoff maa ngi uh, yëngi kaddu si Yoff di wax lakkoon fakkoon ñàkkoon lakkoon fakkoon ñàkkoon rakk topp mag doom topp bay maa ngi jël nuyoo nuyoowu yoof di ko teg ci loxo waa yoof di jël nuyoowu yoof di ko teg ci loxo ñi yor baatu yoof di jël lu yow yoof di ko tekk ñi xamante ne ñoom ñooy wax ak yoof ñooñu mooy ñi yor ndomb tànk yoof jaraaf maa ngi leen di nuyu di nuyu saltige yi saltige maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu bu baax président Pédar di nuyu bu baax kilifa yi Tongoor yi ma fekk fii muy délégué de quartier yi ak ñi yor baat bi fii si Tongoor kulim juum mais bu ma yëkkee kàddu Yoff damay jëkk a nuyu waa Yoff bu ma leen nuyoo ba pare jox leen seen cër parce que ñun république bu bees moo ñu fi indi mais dafa am lu ñu fi fekk ñu gëm ko lool ñu fonk ko lool moo tax bu ñu laa wax dara ñu wax te waxuñook ak yéen waykat bi dafa wax ne la nga doon boo ko bañee dafa fekk nga gën jaañam monsieur général je vous donne les clés de ma ville je vous donne les considérez-vous comme étant un citoyen de Yoff. Il s'agit de vous, il s'agit de la terre. Je dois dire merci. Merci à la terre parce qu'aujourd'hui, les femmes et les jeunes de Yoff peuvent se considérer comme étant véritablement des acteurs qui vont saisir cette formidable opportunité qu'est la DER. Je vous félicite. À vrai dire, vous avez fait bouger les lignes au Sénégal en matière de financement. Je suis et je fais partie des convaincus. Je fais partie des maires et les acteurs de développement qui aujourd'hui peuvent dire sans risque de se tromper que la DER a réglé énormément de problèmes. Le problème de l'efficacité du financement. la tey sa financement jot ko tey le lendemain nga dem régler sa soxla régler ngeen le problème de la sécurité du financement ñu jox la ko anam yoo xamante ne kenn du ko jël mais surtout régler ngeen la question de la proximité de l'agent qui doit vous financer parce que da ngay dugg bureau DER génn dem ci sa place mais DER xam na ne tam régler ngeen la question de la flexibilité en termes de besoin de financement parce que li nga soxla ngay laaj mais boo si defee résultat laaj leneen ainsi de suite ñu lay gunge ba ngay màgg bon dëgg wax dëgg yàlla DER solution la maa ngi demander aux femmes de Yoff aux jeunes de Yoff ngeen def DER seen partenaire ñëw nañ fekk leen fii si quai de bi danañ fi def lu ci ayib mais dee naa léegi Pape ma ne ko jéem defal beneen bureau nano crédit à Yoff bu ko defee ñu dem boore booru marché buñ génnee booru marché gëm naa ne boo ñu jàppalee ñu taxaw Ouest Foire boo ñu jàppalee ñu taxaw Nord Foire boo ñu jàppalee ñu taxaw Biagui boo ñu jàppalee ñu taxaw Diamalaye mon jeune frère Pape vous êtes dans la plus commune en termes de superficie du département de Dakar Yoff c'est du Casino jusqu'à la Vélière de l'océan jusqu'au cimetière saint c'est la commune la plus étendue en superficie mais aussi c'est la troisième commune en démographie Ça veut dire que plus tard, dans quelques années, nous serons la première commune en démographie parce que nous avons des perspectives de progression démographique, alors que les autres communes sont saturées actuellement. Mais ce qui est encore plus important, mon jeune frère, vous êtes dans la plus belle commune du Sénégal. Mais Yoff aussi dëkk la boo xamante ne dëkkuñu gore la dëkkuñu jub la dëkkuñu baax la moo tax sa dernière préoccupation bi boo tëddee na nelaw marché poisson ne ne quatre-vingt-dix-huit pour cent de remboursement la ñam Yoff day yaakaar naa na ñam cent dix pour cent de remboursement bon nag maa ngi leen di remercier bu baax Pape li nga ma may rek ma wax ak sama samay population di leen remercier di leen remercier di leen wax ne am na lu ma fi dégg am na lu ñu ma wax mais wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dañu ma wax fu ñu ma warul waxe wax jooyaat ñu ne ko looy jooy mu ne dafa am ku ma wax te waruma wax ba mu jooyaatee ñu ne ko looy jooy mu ne ah dañ ma wax te wax ma jotagul bon dëkk dégg naa fi Dakar man de dama naan Ndakaaru sama ndijaay mooy euh, grand sëriñ du Dakar te nag pencum lébu boo fa amoon ndijaay bu fa daagu te sànq waykat bi dafa am lu mu woy mais galan bi dafa am lu mu tëgg te daf ne ëpp na mbërëm ëpp na mbërëm doomi ñay ëpp na mbërëm kon nag galan bi dafa am ku mu waxal ki mu waxal moo ne ma li xamante ne dañ ko war a wax mu jëm ci penco dangay xaar ba penc ma bu ko defee boo génne door a wax ak population yi bon nag sama dëkk waa Yoff jox ngeen ma joow ma joow jox ngeen ma gaal ma wat dugg ci géej bu ma dugalee joow bi si gaal gi yaakaar naa bu ma joowee xam ngeen teeru bay soo gi laay teer bu ma teeree bay soo xam nga du ma def maa leen